Eh, yàlla suñu borom da ko dencaloon maam Thierno Ibra Faty waaw bis bi ñuy fàttaliku borom daaru it mooy bis bi nga xamante ne ci la Serigne Touba jugee Ndar ci la Serigne Touba jugee ci tukki bi bi mu ñibbisee ba egg si Ndar dafa woolu borom daarul moo te mu fekk ko Ndar ba mu ñëwee it di mbégte moo xamante ne mbégte mu kawe kawe la wax nañ ne ñoom ñaar tisbaar ñoo ko julli ñoom ñaar képp kenn raxu leen ci ab néeg julli fa tàkkusaan julli fa timis ba julli fa gee te kenn kenn kenn raxu leen ndax bi mu jógee ci tukki bi liggéey bu mag bi nga xamante ne moom la bàyyi woon maam Thierno Ibra Faty ci bis boobu la la lañ doog a gisewaat mu wax ko li nga xamante ne moo xew ci ginnaawam bu fi borom daaru jógee nag sëñ moo daw balla doon na ko fàttaliku ci bis bi nga xamante ne moom la fi jógee def na ko ci nekkuk sëriñ Modou Moustapha yëpp bis boobu la doon màggal waaye bi sëriñ Fallou ñëwee bi mu ko laajee ndigalul màggal daarul mooti gi ndax noonu la ñuy doxee ñun waa daarul mooti képp ku fi nekkal Serigne Touba yow la ñuy def suñum Serigne Touba lépp màggal gi saa su jub see dañuy ñëw ba ci yow laaj la ci ndigal Serigne Fallou ci jamono jooju bi ko suñ morow balla laajee ndigal mu ne ko màggal gi dinañ ko def waaye nag dañuy soppi bis bi ndax bis boo xamante ne bisu naqar la kenn du ci woote di ci feeñal mbégte daan ne ko nañ ko def ci nisu Sambaan ji ndax mooy bis bi nga xamante ne mooy bisu màggaluk mooy bis bi Serigne Touba gisewaat ak maam Thierno ginnaaw tukki bi te lu yéeme am ci seen seen diggante ndax ndax bisub màggal Touba gi mooy bis bi nga xamante ne ci la Serigne Touba génnee Mbàkke Baari jël njaboot gi teg ci loxol maam Thierno bis bi ñuy màggal Daaru Muxti mooy bis bi nga xamante ne ci lañ njëkk a gisewaat Serigne Fallou mi yeesalaat màggalu Touba gi moo salaat màggaluk Daaru Muxti gi at mi it dañ ko séddoo ci digg bi dañuy màggal Daaru Muxti toog 6 mois màggal Touba màggalu Touba toog six mois màggal Daaru Muxti borom daaru Serigne Touba seeni mbir ci zaahir rek lu ci bari lu ci bari da ci feeñ loolu mooy mooy li war a màggal waaw màggal gi nag ñi ngi ci soixante-quinzième édition biñ ko tàmbalee ak léegi waaye ci Serigne Abbas bi mooy ñeenteelu màggalam bi mu nekkee borom Daaru moo Muxti ak léegi moom it bi mu ñëwee ci yaatal xam ne jamono ji ñu toll communication moo moo yor lépp donte defuñu ko ngir ngir wane borom daaru ndax du ko nëbbu bañ koy wane waaye jamono ji mooy dox noonu faaw ñu wane ñi nga xamante ne moom la ñu suñ borom jox ngir suñuy ndaw raw roy ci ñoom ndax am na ñoo xamante ne ñi ngi ci suñu wet di wane ñeneen ñoo xamante ne ñooñu lañu bëgg ndaw ñi def ay def leen ay exemple te am nañ ay exemple yu doy ay exemple Serigne Abbas ci yaatalam mu ci commission Magal Daaru Muxti gi gën koo yaatalaat ba ci ci ci ci yaatu googu ci moo ñu mën a may bu màggal gi jàllee am colloque yoo xamante ne dañ koy def am caravane boo xamante ne ci régions yi Sénégal yi dañ fay dem ngir ngir ngir fàttali bis bi ngir soññewaat ci wane wane jikkooy borom Daaru Muxti gi waaw ren ñi ngi ko doon defee King Fat Place le 14 le 14 bi passé université Cheikh Anta Diop def nañ fa def fa benn. ci bisu màggal gi it noonu la commission bi di nekkaate ci biir dëkk bi commission culturelle lu jëm ci exposé yi ñoo ko ñoo ko yor. ñu nit ñu dénk ñu biir kër sëriñ bi liggéey bi kilifa yi gis ngeen leen ñi ngi ñëw ko dem waaye bëgg nañ taxaw ci biir kër gi ba ba ba képp ku fi ñëw moom sa xol dina sedd te